gàmm lépp noonu la demee woon bi nga koy expliquer bi nga koy accuser de de de de de de de de voilà quoi de kenn mënul comprendre moo ko dara dafa dafa def ay déclaration nit ñi ay sàcc ma def ay ba ma waxee ba léegi kenn tontuwuma non cest bi ngay wax ak argument yi nga yoroon waaw loolu loolu moo am ba tey que ni Idrissa Seck dafa luubal xaalisu réew mi. mais attends non attends attends déedéet defal naa euh, Mame Mbaye papa nga léegi pourquoi yow nga bëgg a tontu ci loo xam ni man ba ma ko waxee ñoom tontuwuñu non mais attends non yaa ma ni. waaw loo wax. man lu ma wax indi naa ci loolu laa lay wax ni. da ma sa da ma sa dégg ñu ne samay firnde baaxul non waxuma loolu de. non dama bëgg yow nga wax ak nga wax ak Séné parce que tey sa camp bi dafa changé. waaw euh, mais mais mais attends. bi dafa changé tey man li ma mës a wax ci moom yëpp toog naa encore une fois. xëy na maa dégloo tuut rek. non man man changé wu ma man Papa Ngagne du ma nit kuy wax di. waaw dellu gannaaw ci ay wax wala di changé wax. kon wax sa circonstance du wax. mooy. mooy li may wax tey ñi nga xam ne dañu luubal alalu réew mi moom Idrissa Seck yaa ngi koy yaa ngi koy wax ba tey. mais mais attends maa ko waxoon kay kon kay da ma dégg ma da ma dégg ma ni waxatuma ko maa ko waxoon boo ko bëggee fàttali nit ñi demal nga jël man ak Aïssatou Diop Fall ñoo ko jël am na ñu koy def am na ñoo xam ne loolu lañ def liggéey defe ni dama ci am gàcce maa ko wax c'est-à-dire man awma problème mu dellu si ci lu ma waxoon xam nga problème mu lan laa am problème mu li nga wax ni amul li nga wax ni tegoo ko ci dëgg problème boobu laay am cest à loolu moom mooy indil problème de conscience mais eh, doo am problème de conscience ci ki nga xam ne da nga ko accuser loolu yëpp. nu non du ma accuser déedéet non kon lan nga accuser mooy waxal nit lu mu deful. non non non non non même accusation mën na am présomption mën na am. déedéet non attends attends. ça kon li nga ko def nu mu tuddu Papa Ngagne non nu mu tuddu nu mu tudd. Papa Ngagne mais ni mu tudd. tontu tontu la tudd nit ku ni man boo ma nee ma tey jii nii boo nee ma maa luubal xaalisu. ok ma ne la am nga ci firnde dama boo nee maa lubal xaalisu parce que ay projets yu bari am nañ ci loolu la ñuy njëkk def dañuy dem tribunal nga wax ma fan nga teg mais man bu ma xamee ni que yaa luubal dara man dama naan papa nga ñu yaa luubal xaalisu TFM bi boo nee déedéet man la déet xaalis bi fii nga ko denc nga ni déedéet man la déet lii nga ci jënd mu nga ni déet man la chèque bii nga ci signé man balaa ma laa jiiñ dinaa fexe ba am loolu parce que àqu jiiñ la loo deful laay laay daw dawuma ci nit ñi naan waxul dëgg noonu non sama diggante ak yàlla laa ciy xool. léegi Mame Mbaye donc amoo problème mu conscience ci kooku nga xam ne dafa jël alalu réew mi comme ni nga ko waxee woon dugal ko ci ay banque moom Idrissa Seck tey. Mhm. sa mentor sa président de la République jël ko am fu mu ko teg ci réew mi mu yor fa ndomb tànk loolu amoo ci yow problème conscience amoo ci dara loo xam ni. mais man ak yow ñoo toog fii man ne la réew mi ci li mu jëm ñëpp lañ soxla. moo xam nga sàcc. moo xam nga